jaar ci yow mii pour dellu waat. non xam nga béykat dégg nga dégg nga tamit li mu wax waaw. dañu waxtaan waxtaan wax dëgg sa la. Mm-hmm. sport boo gis ci monde bi dafa am boo xam ne fala la yem dañu waxante dëgg tey làmb si roi des arènes la yem. Mm-hmm. football mondial si coupe du monde la yem. Euh. tey tey Italie moo nekk euh, champion d'Europe coupe d'Europe actuellement Modou Lo moo ko nekk nañ ko ko nangul moom nekkoon na ko nangul nañ ko ko bi ko Yékini bi ko Tyson bi ko Tyson nekkee dañ ko ko nangul. gars yi déglu leen waay jàpp leen ci waay. ma ne. waaw mais yéen ñëpp laay wax man moos xam ngeen ma man man moos man man xam bu leen ma tax a wax. bi ko tay bi ko Tyson nekkee dañ ko ko nangul. Hmm. man bi ma ko nekkee dañ ma ko nangul Yékini dañ ko ko nangul moom dañ ko ko nangul. waaw nangul ko Eumeu Sène nangu dañ ko nangul Modou Lo. foofu la tiit foofu la tiitu làmb yem. Hmm. da tey bul ko bul ko bul ko sous-estimé parce que tey loolu la ñëpp di daw tey mbër moo mbër moo fi tey fëgg dans le roi des arènes la bëgg a kon foofu la yem alors li si des nag mooy. Hmm. affaire du roi des arènes nag yooyu tey indiwuñu fi dañu fi indi tey mooy combat bii man gëm naa ni mooy dekk li naan dekki làmb. bii bii. eh waay dimbali leen ma discipline waay discipline discipline waay et eh, discipline bombardier enjeu wu combat bi fan la la toll. wax naa la ko. Eh, eh, waaye jàpp leen ci waay ah waaye lii moo tax lamb fu ko waxee nit ñi wax ci dara parce que dañuy am ay xeeti doomi aadama yoo xam ne yàq fu ñu dem yàq. dim dañoo civiliser lii télévision la partout dans le monde ñu ngi nuy seetaan mais nanu wane image bu rafet. mais kii mi ngi toog ni jàpp njàmburam kii toog ñii ñëpp xool leen ñoom kenn déconné wu ci ñu ngi waxtaan mais du ngeen déglu. bombar ji ay ca baasi léegi sama gars yi di ñaan yéen ñëpp. ah mais non. tey bu bu jotaay sa gars yi gars yi gars yi ñëpp a yem ñoom ñëpp ñaar ñii ñëpp benn la. ndax ku si nekk boo ñibee nga mën a expliquer lan lañ lan lañ war a waxtaan man ngay face à face donc Bécaye. waaw ah enjeu lamb wax naa la ko. Ah, ah. enjeu combat bi. Euh, nekkul ci combat bi nee naa la man li ma bëgg a nekkaat. loolu loolu loolu yow da ngaa bëgg a nekkaat roi des arènes. incha allah rabbi. incha allah Moustapha yaakaar na waaw acca nga. waaw bëgg naa kii bëgg a nekkaat roi des arènes te ci sa kaw la bëgg a jaar. damay damay wax benn affaire. waay gis nga boo nekkee mag da ngay xam nuy communication. gis nga bëgg wàllu jarul yenn yi. Mhm. waxuma ne ba léegi Modou Lô du roi des arènes. waxuma ba léegi Modou Lô du roi des arènes. déggoo mooy la Modou Lô nekk roi des arènes. wax na ko ci journal bi ma koy dégg man waxuma loolu mais man bu ma neexee ne Modou Lo nekkul sama roi des arènes loolu laa wax mais man dama dégg mu ne nañ ko ko nangul duñ ko wax loolu diggante Modou Lo ñëpp xam nañ ne mooy roi des arènes man da nga maa laaj question ma tontu la ci question bi tax man laaj la ko mhm. waxuma loolu ma kenn jaxase ak àdduna mhm. ñaareel ba Yékini chaque jour mu ne tey Yékini sama xarit la sekk lañ am na fi ay combat yu bëri mosoo ko dégg mu ne lii Yékini sama xarit la bokk nañ ay lien wala nangam làmb jooju bokkul ci Yékini yoonam nekku ci. kon ci combat bi la nekk xarit. non ma xaw mooy moo ko tudd ma wax. non sa comprendre nga baax na non Bécaye. ah man maay wax dañu may dégloo. moom moom mooy wax xaaral ba mu pare. waaw waaw bu nekkee magum jëm kii maa tax ñu yokkal ko at bu amuloon combat day hmm? que avance bi mu lekk moo tax ñu yokkal mais bu loolu loolu kon tey du ko yokkal ginnaaw moom moo nekk mag moom mii boo ma jëm moo nekk mag jiitu ma ci làmb lu bari ma nekk xale bu ndaw nekk ci yoon moom mu ne daa bëgg roi des moom yow boo ko bëggee cent bëgg naa ko minti milliards boo ko bëggee cent bëgg naa ko minti milliards xalaat ñaanu la dara bul ma may dara. waaw dafa te damay jël far force. xoolal incha allah bu neexee yàlla. waaw dafa dafa loo bëgg a leeral. waaw. Eh, ndax eh, eh. yéen tëgguloowuñ leen de. Bégaay. acca bisimilah dafa bëgg mu leer aussi. waaw man kenn du ma jaxase ak Sénégal. <laughs> amul benn interview bu ma def tudd naan Yékini sama xarit laak daf may jàppaleeg dafay nangam nangam ndax dafay leer. yaa ko wax si journal bi. non non non journal bi ku bind te yaa ko wax. non yaa ko wax mu leer. non non wax dafay leer tey. Hmm. amul fenn fu ma toog di wax waxi combat bi di wax ay Yékini sama xarit la mu may jàppale ay nangam. non non moom moo ne yow yaa ne Modou Lo mooy roi des arènes bu ma ko minimiser wax nga ko si journal waxan nga ko tey loolu moo war ne kon loolu nga wax yaa ko wax. asumir dañu xoolal dañu gis nga làmb ji man ak yow la bu ci wut wàllu. waaw da nga xoolal gis nga ma ay lii wala nangam. waaw man doo wax sa bopp ba pare bëgg ma jaxase ak nit ñi ba pare. parce que yaa ko wax non non yaa ko wax yaa ko wax da léegi mën nga ma dégg. non bien sûr. waaw dama bu ma jàppale ci làmb ji. dama ne on a dama ne am nañu ay relation dafa leer. yaa ne sekk ngeen ay lien. mais am nañu relation yi bien bëre yi Balla Gaye donc ay. ah non non non Yékini sekk nañu ay ah non façon Guédouti ah Guédouti nga xam ne. di jënd sa combat ak Balla Gaye. non xoolal <laughs> non non xam nga bëgg loolu baaxul. non non nit du wutal nit noonu. tey boo waxee loolu am na ñuy bañ ñi ki ni ngir loolu. nga ko wutal noonu parce que bëriwul. boo waxee lan. bul ko wutal noonu ndax bëriwul ndax loolu nga wax noonu tey am na ñu ko ciy bañ. waaw te yaa ko yaa taxul loolu. bu mu wax. mais yow li nga wax nii. mooy lan ne Modou Lo maa ngi koy minimiser ne wax mooy ah, roi des yaa ko wax booy xam nga lu ma bëgg. waaw wax non doo ko weddi. booy boo waxee loolu ma déglu ko journal. moo tax ma lay tontu loolu. nga dama bëgg nga tey tuuti. non tey amu fi wax tey amu fi yaa ko wax rek. man loolu te bàyyi loolu. man nga rek mag nga da nga war a xool ni ngay waxee. loolu moo am importance. mag nga te da nga war a xam ni non non non non non non baax li ma lay wax man parce que li ma la wax nii yaa ko wax da nga koy assumer. waaye léegi waxal ba amul wax da wax ma lay tontu. waxal ba pare waxal ma lay tontu. loolu amul sens. amul chance lamb man déggoo ma ne tey Tyson sama mbokk la wala sama xarit la ñoom ñëpp laa sëkk ak jàpp mais bu may bëree man man la concerne ak suma mbokk ak suma esaf concerné wul kenn sama esaf la concerné mais Bécaye dafa mel eh, eh, eh, pare léegi pare ñaanuma yàlla waaw Moustapha. Moustapha nga. Eh, eh, du ngeen ma dégg. Eh, Moustapha. nga ne dafa mel ni. gars yi fa ñu wax ak ñoom ñu calme Moustapha. waaye ñoom ñu seen présence bi. wax ak ñoom mais Moustapha xam nga nu ñuy def. oui. yéen ñaar ñii wax leen ak seen ñii ngeen àndal waay. ñu discipliné tuuti. Hmm. waaw. kii dama bëggul Moustapha day dem ci jël bi ay ci bisimilah. non dama bëggul mu may ay wax. waaw yoo xamante ne non mais wax boobu bu ngeen ko fi naree toog kii wet bi kii dëggal kii wet kenn xamee ma loolu kenn xamee la ko ci combat bi la ñu ko xamee waaw dama ni combat bi waral ñu xamee lu li may wax dafa leer waaw affaire roi des arènes ci dugg mu ne moom dépassé na roi des arènes ma ne ko ku ko fi nekk dañ ko koy nangul point barre parce que da nga ko wax ci soleil bi man maa ko déglu maa ko déglu nga wax ko boo ko wax loolu tey da nga confirmé ne loolu moo waxoon moom laa waxaat tey moo tax mel na kenn du ma jaxase àdduna mbokk yi kon li nga xamante ni moo di waxtaan wi yéen a ngi koy dégg pareegul xaajagunoo pare ndaxte Moustapha day ñëw ci jëll bi ah wan kenn ci ñoom ñaar seeni combat ah ñu xool bu baax ni nga xamante ni nii noonu la ñu bëree noonu la ñu amee ndam Moustapha le tigre de Fass. waaw le tigre de Fass champion. est-ce que. waaw mi ngi noonu ah mais géwël ana nga temps bi doo laal dara ngay ana tàndaan tafaa di ñëw.